Mm-hmm. pour ñu gën a différencier wu pour ak s'accaparer de nos biens. Mm-hmm. ak quand l'indépendance. D'accord. à quand à quand. xol lay waxee ndeysaan. non waxewuma xol je dis juste la vérité. Mm-hmm. man nag je souffre pour mon village. mënuma souffrir pour tout le Sénégal. et désormais je ne fais plus de dons. social jeex na ci ci Dakar. samay mbokk lay toppatoo ji. ku nekk na toppatoo ay mbokkam ku am toppatoo say mbokk dé déglu ma jële di haut et bu fi kenn ñëw ci bureau bi dama leen de mélange social non écoutez je dis la vérité ku am nag toppatoo say mbokk toppatoo sa gox man Dakar fii su may toppatoo sama quartier laay toppatoo sa quartier samay voisins d'accord su ma paree dem sama village j'ai tout le village là 90 pour cent ay pauvres lañu mhm. y a des orphelins y a des mhm. nguur gi toppatoo leen man du ma leen toppatoo Macky Sall a inauguré au Fouta bi mu toogee ba léegi nañ ma wax lan la il a inauguré quoi. waaw mm-hmm. ah, coupé na ba benn ruban xaw ma école arabe. Mm-hmm. à Kanel ça déjà j'ai vu. ok waxam lu muy lu muy inauguré. je dois m'occuper de village man le peu que mm-hmm. ñu mel noonu aussi dañ leen di faagaagal ay impôts ay nangam ay nangam. fi ma wax ak yow nii. ñu ngi tapé ordinateur yi di xool Abdoulaye Diallo mi <laughs> combien de maisons il a pour ñu. auditer la non auditer ci lan pour ñu ndayam impôt dañ koy ndeyam impôt léegi sa doomeram la lool la ñuy wax. lan la yor. Mhm. man sama liggéey warul sax fay impôt yi. c'est même pas dans la loi. n'est-ce pas ils l'ont abrogé en 93 la ñu ne médecine traditionnelle c'est interdit. Mhm. <laughs> xam naa loolu di ah léegi la ñuy ubbil benn benn kii ci ministère de la sante ah. ministère xaw ma lan chargé de des phytothérapeutes xaw ma de la médecine traditionnelle je n'irai jamais là parce que ñii ñi dem naa foofu parce que au Gabon on donne ce qu'on appelle diplôme d'aptitude à la pratique de la médecine traditionnelle mm-hmm. fii amul loolu ma dem pour parce que bugguma tooñ mm-hmm. man lu may def day jaar yoon su may tawax damay fay man du ma tooñ mm-hmm. boo laajee suñu préfet rek xam ne ci dara man je suis très très très homme d'état du ma tooñ mais su ma gisee dëgg damay man je viole jamais xoolal yaa ngi may dégg bu baax. bu baax dañuy léegi club des tradipraticiens ñoo ñoo fa nekk. des gars nuls vides qui n'ont même pas appris la médecine jóge ci village rek ñëw ñu ne garab bii day faj lii garab bii day faj ñu dajal naan ay fajkat lañu. moi je vais dans ce groupe là quitte à ce qu'on me dit arrête ce que tu fais. Mhm. Mhm. du ma dugg ci ay fenkat. je suis pas D'ailleurs, je ne fais même pas le, le, la médecine traditionnelle, je fais de la naturopathie. Thaï, le Sénégal, regarde le cas d'Abdoulaye Diallo aujourd'hui. Mhm. Je suis le seul au monde qui traite l'hépatite B, de quoi Le seul qui traite le diabète, de quoi guérir. Le seul qui traite les maladies rhumatismales, Toubab Mounouk, nerf sciatique, hernie discale, arthrose, rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde. Je soigne tout ça. Je guéris ça, on va me le soigner. Donc, en fait, bon, sans corticoïdes. hernie discale opère lañ ci xam wala ñu jox la ay massage man je te soigne ça en seize nga dox sa dox combien d'hommes combien de femmes ñëw fi ak seen beek wala seen fauteuil roulant il marche deux mois après mm-hmm. wallahi même ce matin une fille de ah, toog na cinq ans jógee Thiès toog na cinq ans doxul je peux te donner son numéro mm-hmm. ma doxloo ko amul fu mu demul ci àdduna macha allah mu ngi nii di rey nit ñi allergique sportif ko dégg yëpp laay faj colopathie mhm. ñu ngi ni Touba mënu ko faj man benn prise ngay nan nga ngay naan nga wér. man on me valorise pas. Mhm. on me valorise pas. d'accord. on a eu des problèmes des Pakistanais qui traitaient les yeux war a jógee Arabie Saoudite ONG moo di xaw ma ONG moo leen di financé pour ñu am visa problème la woon fii et ils viennent juste nous aider. Mhm. ils ont fait combien de semaines sans visa. c'est quoi ça. métti na. métti hmm? na sax Macky de newoon xale yi jigéen yëpp am jëkkër. Hmm. waxoon na ko noonu yow am nga jëkkër. déedéet célibataire léegi la ëpp. <laughs> dafa gën a bari. xam nga sànq danga wax ci say biir wax di wax ne xaalis bi ñu jël di ko dundee tamit lu dëgg nag lu muy muy dëgg parce que danga nga ne fii gaa yaa ci mbedd mi daanaka di fanaan amuñu sax fu ñu tëdd ñoom seen doom ci avion yi lañ dëkk. léegi yow naka lañ mën a def kon ba pauvreté jóge Sénégal te yow des fois say wax damay dégg nga naan ko pauvre yaa xam. ku pauvre yaa xam. man damay liggéey ak li nga wax bi damay liggéey gisoo gisoo cheveux naturel maa ngi koy jaay léegi. te moo wax la benn li ma jaaxal. li may jaay cheveux naturel ah prix bi may jaay en gros ça au marché tu peux pas les avoir. marché tu peux pas avoir ça en gros. mèche guddaay cinquante bi. Mhm. ah cent cinquante mille laa koy jaay deux boucles foo gis. cent cinquante mille. kon yéen ñi nga xam ah, docteur Abdoulaye Diallo foo ko gis day jaay cheveux naturel. man su ma neexee basin basin jésner ma jaay ko neuf mille. six mètres yi. te original bi ah. Mm-hmm. qui dit mieux astafurlah mun ma ko jaayee neuf mille neuf mille cinq cent. neuf mille cinq cent si mètre. waaw non de le maître j'ai dit. ah maître waxaloo ma ma wax nag. dama lay tuur café bi. <laughs> mi ngi doon am ngeen gan waxoon naa leen ko ak moom nga lu tax ma def li mm-hmm. les filles là moom la ñu gëm. Mm-hmm. ma jàppale leen. ne leen ñëw leen jël ngeen dem jaay ngeen am ci. ngeen bañ a toppee góor ngir cheveux naturel au moins an ngeen di jaay di ci sol di ci bénéfice xanaa bii moo gën a yomb ko ngay dem ñu lay nax dëgg la ñu lay tëddee te duñu doo gis dara di la ko dig rek hmm. Hmm. c'est pour sa sa hmm. aussi c'est un combat social je fais le peu que je peux nga su ma yóbbee ay frigo side by side yu jar un million cinq cent footu ku koy jënd foofu est-ce que dina am ay clim yu jar un million deux cent ku koy jënd footu déedéet ay aspirateur yuy jar cent quatre vingt wala yi quatre vingt mille ku koy jënd foofu. ay télévision yuy jar un million quelque koy jënd foofu. léegi yi nga fa yóbbu mais dama bëgg Kanel am lépp déggoo ma xanaa. du mhm. fekkee may commandé Mercedes rek quatre vingt trois millions. fekke naa ko waaw. ah. Mhm. pour na am lépp. bëggatuma Kanel waa ma ne di dama wurus ak di jindi maa tey. nan ñëpp def ni ni may def. kon centre bi nga def ñoom jooyatuñu déedéet bokkul Auchan lekk lay lay lay jaay man jaayoo ma lekk. jaayoo fa lekk yow xanaa amoo sa kii bi amul yokku tuuti. <laughs> ay al mais dama xam ne comme kadal du manqué. électroménager électroménager. man leer na ma di nga fa def loo xam ne. tissu prêt à porter. Mhm. masculin féminin make-up. Mhm. est-ce que xam nga foofu yóbbu naa ay parfum yu jar cent et quelques mille. ay parfum yi jar cent dollars. ñoom dinañ ko mën a cent euros ku koy jënd. naka la am lépp nëpp bu mu jar. je suis prêt à porter gosse très prêt à porter jeune homme prêt à porter femme euh, tissu defee make defi cosmétique euh, graffage. salon de massage nag amu fa. maa tey ku ku ñuy massé <laughs> waa Kanel kay waruñoo soxla dara. ku ñuy massage foofu si jigéen ñi sax amuñu massage. ah ña fa nekk góor ña fa nekk soxlawuñu massage. laa ilaaha illallah foofu amul yooyu de. amul siwut bote. <laughs> yooyu amul sax tàllam foofu guddi tàllam amul foofu de. waaw amul sol fii massage de. waa Kanel waruñoo ñàkk dara kon defal leen booy tëdd ko di caay nga sol. Ah. <laughs> alors bii noonu à chaque fois nii lay demee suñu émission ak moom borom baax la ndeysaan. xoolal résidence bi ma fa tabax dafay am solo ci ay. xoolal résidence bi ma fa tabax. Uh-huh. bu Serigne Touba c'est pour ce quoi. Uh-huh. moi je vais même pas habiter là baa fi baa fi tabax benn bu garaaw. désolé foofu laay dal gis nga résidence pour les ânes ay paam. àjjana lay dund. xoolal je dama nar tabax hôtel boo xam ne cinq étoiles la. quatre immeubles ku fay loger. dafay nëb kon mais na Kanel na Kanel am lépp je m'en fous. ok déggoo ma xanaa. pourtant dafa nëb parce que ku dem kaneel di nga. am soxla si je m'en contre blanche parce que man milliard ak dix mille francs laa yemale xamul dama yemale leen. Mhm. milliard bi lekkuma ko di. xaw ma sax ndax maa ko moom wala ma koy donn dix mille bi may joxee dépense boobu la tal. ok d'accord ma. Mhm. dix mille bii ñu may toggal léegi léegi léegi léegi sama petit déjeuner defal ma steak haricot vert moo ma gën a lu ne. ok chaque fois que je me réveille dafa mel ni tey commencé liggéey. demande les comment je travaille comme un fou. Mhm. léegi ñu may naan formation la. nga quoi dañu naan formation la. waaw loolu kay wax nañ ko. magicien la. <laughs> wax nañ Sénégal boo amee xaalis c'est fini pour toi. ñu ne moom nga. gisoo Ndiouga Kébé xam lu ñu doon wax. waaw xaalisam baaxul. liñ doon naan day day dagg bopp xale yi di suul pour mu am jama dama lay nettali benn loolu la ñu doon naxee Fuuta pour ñu dem pour ñu bañ a dem ci àll bi euh, dagg dagg mat. pour te dire dama lay nettali benn anecdote bi ma gënee nekk xale. Hmm? benn kër Ndiouga Kébé bu ñu doon jaar bi ma déggee wax boobu man ma moo woon a jaar. te buntu kër tu vois. barke yonent bi. xoolal sama benn copain xam nga jàkk baa ngi nii bu ñu la dekkee da nga war dem jàkk parce que amoo julli boo dekkee ak jàkk. Hmm. boo jullil nga dem julli sama benn boroma ah, sëriñ la ñoo foondoo Mm-hmm. français ne kon léegi mu ngi fii këram a ngi nii. Mm-hmm. mu ñëw rek di sant fekk ñu xaar imaam bi mu jógee fële gi ginnaaw jàkk ji ñëw ba ci man ak kursam mu ne ma billaahi boo baalu bi. Mm-hmm. ñëpp safar lañ jëm. ma ne ko mooy dañuy naan doo julli ma comprendre nag fi muy waxee quoi ma ne ko yàlla dañu a yàlla may mel ni ma mel. man awma lu su lu dul sama diine ma wax la benn affaire lu ma am sama course moo ko may. damaa ñaan yàlla ba yàlla nangul ma. mbindeef mënumaa très avancé. je suis hyper mystique. Mhm. feuse. Mhm. dama wóol sama bopp. Mhm. gis nga bi may bàyyi yëf yi xam nga am na fu mu na sama samay rakk dañ doon ne man du ma tekki parce que bi ma may mara maraboutage nee naa dama doon door ko ñu bëggoon xaalis bu ma koy tabaxee ay immeuble xaalis bu musuma ci jënd terrain. noo ko doon sama benn rakk jël samay brique sama terrain tabax bi ñu partagé léegi sa yëgaluñ ma. Hmm. ma ñëw Kanel salon laa doon fanaan ma nangu parce que xam naa fi ma jëm. ok su ñemee de nee dañu laa déy. ma leen di jiite benn timis te guddi boobu laa fay jege voyager et je sais que c'est le c'est ma souffrance est finie. Mm ma jiit leen tamit ils n'ont pas compris kenn ki xaafis alquran la keneen ki tafsir alquran la ñoo bokk ndey ak bàyyi keneen ki Mouhamadul Makhtar tafsir la mm-hmm. Alpha tafsir la. Mm-hmm. bañ jox jox ko licence am. ma ne leen ci Faatiha bi ma defee premier ma ne leen deux premier rakk bi ma ne leen. inna alladina rabb ne aouzu billahi mina shaytani bismillahi إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه هثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ما بامتوات لول encore trois fois ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه innahu laa yuhibbul mu'tadiin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Et ils n'ont rien compris. Mais qui bat, bat, bat, machallah. Et ils n'ont rien compris. Hmm? deuxième rakka bi ma indil